non match de gala bi boo gisee ñu organiser ko bon vraiment euh, dañ ci delloo njukkal suñu xarit suñu doomi ndey muy Souleymane Ndiaye muy Gilles nga xamante ne vraiment patriote la woon euh, vraiment liggéeykat la woon koo xamante ne c'était un grand footballeur parce que Souleymane Ndiaye mooy li ma leen waxoon keroog koo xamante ne vraiment dafa marqué football yi Fatick Euh, jeune agi xam nga jeune asfa Souleymane Yaay jeune Mboose bu Kaolack jeune éthique ak man bon convoqué nañ ko équipe nationale comme ni ma leen waxee woon rek donc mun naa wax ne fi mu nekk nii senior muy doomi Fatick man ak Souleymane Ndiaye rek muy Oussou Diagne ak Souleymane Ndiaye ñoom ñoo fi des comme doomi Fatick senior ñu ñu en équipe nationale amatuñu beneen boobu ba léegi donc dem li may ñaax xale yi mooy nañu góorgóorlu ñoom tamit ñu génnal ñu benn ñu génnal ñu ay internationaux. waaw di jaajëfee ñi nga xam ne jël nañ initiative bi aussi def ko muy euh, ñu koy tuddee mémorial Souleymane Ndiaye ñu ko doon def chaque année. bon chaque année dañ ko doon def mais dañ doon invité tous les anciens par exemple les anciens de Kaolack les anciens de Diourbel et de Mbour wala cees dañ leen doon faral di invité mais malheureusement ak corona bi moo taxoon affaire bi ñu jël ko yemale ko ci biir Fatick bi nii quoi moo tax affaire bi demee nii sax mais waroon na gën a am ampleur bu ëpp nii quoi bon loolu mooy waral ñu organiser affaire bi nii donc Souleymane Ndiaye nekkoon nag koo xam ne aussi luñ ko munti defal fii rek ñun xeeb nañ ko daal parce que li mu def ci Fatick mënuñ ko mun kenn mënuñ ko ko fay daal parce que dañ malheureusement il n'est plus la mais dañ doon ñaan mun du doon ba ca kanam aussi parce que sinon mënoon na fi def loo xam ne ëpp na lii daal donc vraiment ñu ngi remercier tout le monde ci teewaay bi ñu def nii suñu collègues yi nga xam ne comme ay Omar Paye ay Oussou Diagne c'est des anciens yeneen ñi aussi dañu amul jot moo tax ñëwuñ ay ñoom Bello ñeneen ñi mais c'est des anciens footballeurs yoo xam ne vraiment def nañ fi lu lu lu rëy lañ def ci biir Fatick bi vraiment loolu euh, di remercier aussi le ministre des sports Matar Ba bi nga xam ne moom lépp luñ ko wax rek daf ñu ciy uy si jàpp lañu ci donc ñu ngi ko ciy remercier bu baax ak euh, Mamadou Ngom Niang aussi c'est un boo xamante ne aussi mu ngi ci doon jàpp bu yàgg lépp lu ñu doon organiser def ci doon jàpp donc ñu leen di remercier ñoom ñëpp di ñaan aussi euh, fii ak déwén aussi suñ ko naree defaat mu nekk loo xamante ne day fekk pandémie bi jeex incha allah pandémie bi jeex ak jàmm dañu kontaan ci organisation bi euh, dañ cee kontaan kontaan boo xamante ne xamuñ sax fu ñu koy waxee parce que Souleymane ñun suñu lépp la woon ñu bokkoon di défendre ay couleurs yi Fatick su génnee àdduna ñu defal ko mémorial dal di ko ñaanal. wàcceel ko kaamil loolu mbégte la ci ñun ba pare di ko rafetlu si organisation bi parce que ay mbokkam ay jabaram dem nañ ba ñu gërëm ñu loolu rek dafa neex sentiment yooyu dafa neex ku génn àdduna nga ñëw dal di ko jox xaalis ne ko am demal nga wàcce kaamil ba pare def benn match de gala loolu dafa neex daal contentement la si ñun di ñaan fi ñu jaar nii ba dal di yegg si fii ñu di koy jaar chaque année di ko ko defal maanaam saraxam dal di yàgg si suñu loxo. ñoo fekkee dañoo fekkee Souleymane Ndiaye ak le ministre des sports Matar Ba dal di liggéey par le biais de du président Macky saali ñoom ñëpp ñu dal di nekk mairie loolu dafa rafet ñu dal di ko organiser nit ñi dal di ci bokk ñoom Matar Ba dal di ci jàpp parce que jàpp bi mu ci jàpp moom ci boppam. ay waa kër Jules Ndiaye gërëm nañ ko ci te sant nañ ko ci. asalaamaaleykum euh, man la Papis Senghor euh, bokk ci ñi nga xam ne nii dañ leen invité ci tournoi bi euh, waa Alliance ñu doon football ak ancien Sangomar yi ñëwoon ci bésu grand Jules Souleymane Ndiaye tey avant dara nag dañ koy ñaanal moom mi nga xam ne nii moo fi jóge te amoon taxawaay bu rafet ci footballu Fatick ci lépp sax luy xew ci biir Fatick la ñuy wax du football rek parce que moom fu ne la féete woon Fatick di ko ñaanal daal yàlla yokk leeram euh, barkeel njabootam gi fi des vraiment lii moom ñu ngi koy rafetlu. di bés bu am solo ci képp ku nga xamante ne bii rek sportif nga dëkk Fatick ndax ki nga xamante ne bii moom lañ ko jagleel di ko defal mémorial muy Souleymane Ndiaye ah, liggéey na fi loo xam ne si sport. néew ma kenn dootu ko fi def waaye dina xaw a jafe ndax nag def na ko fi en tant que joueur waaye def na ko aussi en tant que dirigeant en tant qu'entraîneur donc nit ku mel noonu bu fi jógee ay naataangoom ñoo xam ne footballandoon ak ña moom euh, am xalaat bu rafetu defal ko mémorial fàttaliku ko waaye aussi boole ci ñaanal ko mënuñu rek ñun ñi nga xam ne ñoo féete ndaw ñu rafetlu ko bu baax a baax li ci des rek nag mooy ñaanal Souleymane fa mu nekk gënal ko fii. dama ko xam bu baax wax dëgg yàlla parce que celui qui nous a formé man personnellement moom moom ma formé en tant que joueur en tant que homme encore waxuma waxuma footballeur rek mais per Gilles dafa def ci loo xam ne ñun dafa def loo xam ne ci ñun amul ku ko def ci ñun fii biir Fatick franchement. parce que il nous éduqué xam nga nañu ñu respecter le monde professionnel que ça soit sur le côté sportif que ça soit sur côté encore de l'administration. franchement nit ku baax la woon nit ku xam fi muy taxaw nit taxaw na man fu fu bëri personnellement daf ma taxaw fu bëri waaw que ça soit sur le côté professionnel que ça soit sur le côté sportif waxuma des joueurs mais il a des hommes parce que ñun tey am na lu bëri loo xam ne moom lañ jëlee référence wax dëgg yàlla dafa doon nit koo xam ne dafa am fu la am fayda xam li nga xam ne fa la war a dugg ak ñun loolu lañ xamoon ci moom. tey ma ñëwoon ci bés bi tey nga xamante ne ni ñu ngi ko jagleel ndem si yàlla di Souleymane Ndiaye euh, ma am mbégte lool di yëkkati kàddu ci turi ASC Sangomar yëpp euh, di wax ci kàddu président ASC Sangomar nekk Babacar Faye mais di wax également ci mboolem dirigeant yi ASC Sangomar te nag bés bi vraiment ñi nga xamante ne ñoo ko organisé du ñu def lu tul remercier leen ndax lii dafa am solo lool ci doomi aadama su fekkente ne nag nga nekkoon ak quelque ki nga xamante ne ni dafa amoon njëriñ pour société bi maanaam ñu ñëpp xam nañ li Souleymane Ndiaye apporté ci wàllum sport bu Fatick tey suñu toogee ba nga xamante ne ñi mu àndaloon doon bokku liggéey boobu ñoo toog di ko fàttaliku di ko ñaanal defe ko mémorial loolu du ñu def lu dul sant ci yàlla di ñaan yàlla également yàlla na ko yàlla xare àjjana mais ñi ko organiser également yàlla na fi yàlla bàyyi ba ñu mun di def édition yi di ko def di ko defaat donc vraiment am nañ ci